fukki yoon faatiha benn yoon inaatiha fukki yoon képp ku ko def dees na ko jéggal bakkaaram yëpp balaa mu jóge fa ko doon defee loolu nag lu bëri wiiw la te des na ko bindal tuyaabay junniy at maanaam junni at yoo xam ne at mu ne da nga koo aj ak junniy xomra dem di siyaare Yonent bi sallallahu ak yoolu ku saraxe junniy dërëm mel na ni it ku seeti junni ñu wopp te seeti nit ku wopp Yonent bi sallallahu alayhi nee na daaw juróom benn yam limoon ne bu ne war na ko ci moroomam bu bu ko rombee nuyu ko bu ko laajee laabire mu laabire ko bu feebaree mu seeti ko bu faatoo mu gunge ko bu tëslee mu ndokkeel ko kon loolu def ko benn am na solo waaye junni ñu wopp nga fee nga seeti leen. ak gunge junni néew ku ne xam ne ne néew it bëri na gunge ko bëri na njariñ lool ak jàngab kaamil te des na ko bindal itam te yaabu ju ëpp jaamu yàlla ak juróom fukki at loolu nag jar na jar na def am na solo lool bëri na yiw gàtt na seen xikama bis bi dañ koy delloo ci njàngalem Serigne Touba. dafa am ko mas a ñëw ci moom an ak nit ne ko ñaanalal ma kii sama jaam la sëñ Tuubaa ne ko boo ko moomee di yaama moom ndax ñoo bokk borom loolu li mu firi mooy yàlla benn buur la te moom moom nit ñëpp kenn amaatu nit ku du yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa